julli ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam di gërëm mbooloo mi fi teew yëpp di gërëm ASC yi fi teew tey nag man maa woote woon dafa am lu ko waral du dara lu dul woote jàmm ak salaam parce que loo gis rek jàmm ko gën ah ba ñu commencé lii je pense que am na lu ñu waxoon ak suñu borom ñu commencé ko di liggéey di liggéey commencé campagne yi xeex ànd ak suñu mentor le ministre Diène Farba Sarr juste rek pour ndamu président Macky Sall mu nekk ci di xeex di xeex ba président de la république am ndam ba mu sax mujjee feebar ah ñu pare yàlla suñu borom bi tëra teewul am nu mu doxalee ñu dellee cant loolu sax nous ne xam discours qui ma discours réseaux sociaux yi président de la république le poste de responsabilité Aujourd'hui, nous président de la république Aujourd'hui, lañu sommes a ak nous je pense que c'est ça. vivre avec beaucoup de dignité avec beaucoup de personnalité avec beaucoup de respectabilité tous les nous ay tous pire lañu xam nañ ne mënoo président de la république nekk si nekk poste ministre rek nga mën a président de la république et donc kii di Diène Farba Sarr nekk liyaat naam ah gëm ko gëm vision am di ko liggéeyal depuis très longtemps kon bu yalla am nu mu am rupture bu mu def ñu sant yalla suñu borom nga xam yow wolu nga sa bop xam nga ne yow soxoro sa xol bi denc loo kenn lu bon defoo dara lu ñaaw jël sa alal xalé ne xama sidi ko jamm yalla yi jël sa alal na xama def social mbir am nu mu way waaye santal yàlla nga tok rip xol xamna amna amna yalla amna lu xew su fekkoon ne lerr na la amna soxol bi nu mel lerr na la ne yow askari kaw la contane ci yow lerr na la defoo lu bax war nga toogaat yeddaat sa bop ne man kay xamna li li ah amna lu xew ba yalla tek ba tek ma li sanction la mais ñu lu ñu dalon du sanction way yalla mo ne ne arrêté

feene si suñu mbokk murid yi xoola suñu sang bi sëñ Mountakha lu mu def jubale suñu président de la république ak Abdoulaye Wade lu rafet la loolu la Sénégal soxla loolu la Sénégal soxla tey jii ñu si bëri am na ñoo xam ne kontaanuñ ci loolu parce que loolu arrangé wu leen il divise lu ñu mën rek mooy diviser rek yàq rek ñu bëri loolu arrangé wu leen mais président Macky Sall kontaan jubóog ak su ak baayam Abdoulaye Wade loolu rafet la loolu dina tax Sénégal wàcc fi yàlla wàcc fi jàmm loolu lañ soxla tamit sama diggante askan wi sama diggante Kaolack samay moroom samay ñëpp aw ma kenn xaaram yàlla tàllal naa sama loxo tallal naa sama loxo jox ko bépp jeunesse tallal naa sama loxo jëpp ñëpp jël leen buum ngeen takk sama ngeen takk sama baat di windee fu leen neex bu dee nag yéen ci yoonu dëgg laa wax.